الحمد لله الحمد لله لين تي في ليرو دينه الحمد لله رب العالمين ci لين تي في ليرو دينه ذاك حقا ذاك حقا مزيدات كذا Gurgelerden Gurgelerden Gurgelerden dama bëgg xam ñu bëgg sëñ Babacar ci jotaay bi lu toll xam ñu bëgg sëñ Babacar ci jotaay bi lu toll sëñ Babacar si mooy sama wasila sama wasila قد زعم الكل في المدارد دون في ذاك حقا مذيدات كذا الجاو جرجل دردر جرجل دردر Baba Kersi إيه، Moy Sama Wasilu Wasilu damay ndax tant bi am na ku bëgg sëriñ Babacar am na ku bëgg sëriñ Babacar ana ñi fi gën a bëgg a bëgg sëriñ Babacar borom ba ne gaare beeg sakkir yàlla beeg manta beeg médaille ay ka beeg ndax lig toxoram ma mënan gi borom fital ñaari ngi mi ngi bàyyi borom daara jeeg daraay dara ji dara dara ji dara ana Ahmed Tidiane bunu salimina ay tiijaan cofeel gi dimb la ay tiijaan cofeel gi dimb la foofee waa di ki ko moom Cheikh ki ji toog xatmiya xatmiya yaa moom sama xol bi yaay ki ji ki ci fees mbégte yaa ma ko sol billaay may bégg bégli a seyxi seyxu tijaan yaa ma ñi abadan mana seex yow li may tilim tilim yaakaar naa la tijaan Aysa Ijaan sarax ma jàpp ma jàppal ma te jàppale ma tey ak ëllëg bul ma seetaan Seexu Tijaan nga fuumaan ma ma billil ma dëgg la akal akal waaye ki sopp Seex Sidi Ahmed Tijaan bi ko taxaw ñu màggal ko jar na ko ne dugg leen damay ñaan rek oh. àggale ma ñun ñëpp ñu bokk ko waxandoo dee leen ma suivre ba ca àggale ma rek ñun ñëpp ñu bokk ko waxandoo ku ko wax bu ëllëgee li yeneen ci bi di séddale yàlla bu la ci kenn ëppale sarax ma jàpp ma jàppal ma te jàppale ma mu tey ëllëg bul ma seetaan Seexu Tijaan nga ma laabal ma billil ma dëgg la àggale ma emang e maa ngi ko yemale fii wax leen àggale ma nga fóot ma laabal ma billil ma dëgg la àggale ma dama bëgg ngeen di wax àggale ma ba waat caawan di leen dégg bu ngeen ko waxul duma duma leen wayal ndar ndar nga fóot ma laabal ma billil ma dëgg la àggale ma may si ci leer bañ daje jannatu rewaay ah.